ay ca doore kox mu sell mi ci yéen a kaay groupe des médias Ousmane Sonko la koy yoot neexul benn yoon la koy yoot seddul de tribune yéen a kaay nee na Macky Sall lor ñu le patrimoine de Ousmane Sonko déetuwaay maanaam mu nga teg gët laa la wax moomeelam googee te soo moytuwul dana nangu réew mi quotidien nee na nangu googee de mu ngi koy dëggal nag waaw waaw garabu fitna ku ko jëmba toog sa taatu garab ga di féexlu dana la jafe wala réew mi quotidien ni kon lii boo leen bëggee dégg dëgg saison ba gatsa gatsa juin 2023 deuxième saison ba lii rek nag moo sookee loolee nguurug Sénégal takku taxaw ngir nag lijjanti dossier yooyee réew mi ko di mooy wax de nee na juróom-ñaari fan ci weeru août 2023 gii les juges d'instruction dañoo bind benn bataaxal di ca xam ne ni kon faw réparation am maanaam ndàmpaay daal faw réparation am ci yàqu-yàqu ya nga xam ne moo amoon ci événement yooyee sàcc ga caxat-caxatee ga ax la ña sa yàqal nguurug Sénégal ci manifestation yooyee le regard yéene kaay nee na avocat état ñoo ko xamle de ñoo ko xamle démb ci point de presse nee nañu l'agent judiciaire de l'état a partie civile takku nañu taxaw ñoom avocat nguurug Sénégal fas yéene jàkkaarloo Ousmane Sonko mu sell mii waaye it képp ku ca taxe wala ku ca laale ba ci Juan Branco nee na suyee boo gaañ a waajal de bu yee boo ngeen waajal Ousmane Sonko ak képp ku ñu jàppee ne kon complice nga ca lépp lu mu laaj nguurug Sénégal dana ko def ngir na nga dikk ci géew bi fay maître El Hadj Diouf moo ko xam ne de maître El Hadj Diouf si yéenekaay bi nee na yëramtël bi jaru ko deedeelu bi jaru ko wopp wopplu gi jaru ko damaa jabet sama suukar daa yéeg problème mu manipulation bi jeex na li dafay dakk l'indépendant yéene kaay nii fay rek gaañi kafuñu de nguurug Sénégal kaful benn yoon libération nii yéenay kaf kay waaye état du Sénégal kaful benn yoon teg na loxo boo leen bëggee dégg-dëgg usine doole mbër ma ak benn contrôleur impôt Mamadou Diop lay wuyoo ndax nag ci mbirum Juan Branco googee xam ngeen ne Jamil Sène maire bu Parcelles Assainies moom mi jotoon nañu ko téye génn nañu ko déglu ko ca sûreté urbaine bañ a sa noppee delluwaat nañu ko sa kaso ba moom maire bu Parcelles Assainies yaa ngi yoon ndax deuxième saison ba gat sa gat sa juin 2023 dama ne troisième saison bay doog a dikk nii nag Vox Populi nee na avocat yu état Sénégal joxe nañu bandaanoos balaa la wax démb ci kanamu taskatu xibaar yi titre film bangook l'état partie civile contre Sonko Branco et compagnie képp ku ci takk bi yee boo na nga waajal takkal say dëbës de lii la xam ne démb ci kanamu taskatu xibaar yi mekkeen tasum xibaar googee démb door nañu ndëpp ma ndëpp national maanaam nga xam ne moo nekk ci mekkeem tasum xibaar Mamadou Ibrahima si l'info yéene kaay nee na soo leen bëggee dégg dëgg de soo leen bëggee dégg dëgg mécceem tasum xibaar mi bu doon entreprise ñu ne moo ngi ci yoonu fayit déetwaay Bamba Kassé feelu ko ca wet ga nee na ko nañ waxante dëgg nag nañu xoolante si ay bët bañ a ragalante joxoñante baaraam ndax foofu la ñu toll nañu am fit wax jafe-jafe yeeg gàllankoor gi ab saan nag si laas yéene kaay nee na ndëpp mi ci presse bi nañu ci waxaale laa la wax situation bi nga xam ne metti na lool ci suñu yi nañu liggéeyee metti na ñàkk pexe moo leen si baax koo sa gis bëgg ko yéene sarax ab sa mooy wax de ab saan ci laas yéene kaay nee na bàyyi leen xel jeune reporter yi nañuy liggéeyee metti na lool ñu sa bari transport la ñuy dundee maanaam ndax am ñu salaire ab saan mooy wax ba tey de nee yàgg nañu nag jàmbat yàgg nañu leen wax fëgg ci table nekkoon xool leen gestu leen jeune reporter yi améliorer leen seen i ndax metti na lool nag tar na sa ñoom Moussa Bokar Thiam nee na leen ci grand place 24 kaay moom sunu ministre di sakkan ñoo ci ay yéenekaay fii ci réewum Sénégal rek nag jëlal site info yi 300 la ñu ñetti téeméer télé yi ñëwagul rajo yi ñëwagul waaye na seen xel daal Moussa Bokar Thiam nee na na seen xel daal l'État du Sénégal prendra toutes les mesures nécessaires pour en œuvre les conclusions des assises lépp lu ñu tënk laaw ci ndëppum national bi faute nationale bi ci presse bi nguuru Sénégal dana jël matukaay yi de ngir daal koy appliquer li ñu war a na bi nous n'accepterons pas ne defee nañ ko nu joxe daal bëgg ñu ko imposer ñu ne deete waaye ñu fës kenn jëfandikoo ngir daal di bloqué ay candidat du ko nangu mukk nag Bougane Gueye mooy wax de ci yéen kaay groupe des nee na du ko nangu Bougane Gueye Dany la makiloog non nee la doon dànxaafoo kon président Macky Sall moo fi waxoon nekkoon soo moytul élection dañu koy dàqaat de dañu koy dàqaat ndax lii ma seen nii président Macky Sall loolu la bëgg moom Bougane Gueye Dany deux ans président Macky Sall toogaat le peuple nee na ndax fii ñu toll nii mën nañ fi organiser ay yu tëddee ñaaxanaay lépp aw ci yoon Karim Wade Khalifa Sall ba léegi dañ leen bloqué ci cutus fiscal ñu ne deetewaay Touba nag trois cent électeurs yoo nga xam ne ni soo moytul bi ñu délocaliser bureau ya voté dana leen të wala mu jafe crise ba sa Nigéria nag le peuple ne dama ne ndax rek mën nañ fa organiser ay ndax gënul ay candidat duñu ko nangu parrainage yooyu ci alerte yéene kaay Habib Niang daas na fanaanal de mu ngay anticiper présidentielle 2024 moom Habib Niang tàmbali naa dajal ay signature ay parrainage laa la wax nii moom Habib Niang njiital mouvement ànd suxali Sénégal dalal na démb laa la wax ab bu mouvement Sénégal debout association des charretiers du Cap Vert ak nag regroupement des chauffeurs et coxeurs croisement Cambérène Dalifort waxtaan nañu de gaa ñi nag nee nañ ko ñoo ngi ca ginnaaw yow rek la ñuy topp ñoo ngi ci wutum signature yi maanaam parrainage yi koo ñu wax rek ñu ne kooku la yaa ca des nee na ko yow daal bëggal rek bëggal rek Habib ñoo ngi ca ginnaaw Habib kon kan lay jàppale signature yi kan la koy jox parrainage yi kan la koy jox laaj baa ngoog le point actu daal di benn bataille feutrée entre trois blocs présidentielle 2024 Benno Bokk Yaakaar fu mu nekk ñetti doomi pendanaa bi ñoo koy lëmbee ñii ànd ak Amadou Ba Doudou Ka Abdou Karim Fofana ca biir Pape Malick Ndour Abdoulaye Seydou Sow Cheikh Oumar Anne dama ne Aly Ngouille tamit ak groupam Moustapha Diop moom la àndal Mame Mbaye kenn xamagul kon nag ana kii kat la àndal ci ginnaaw kan lay topp Sud Quotidien ne kon crise na de lii rek moo tax na président parti socialiste kat yëngu na soo moytuwul dinañu fippu de ut seen candidat AFP it yëngu kon nag nee nañu waa waxal prési tànnal rek war a ñu dem jamono joojee ka demoon def bës jékki-jékki déggatuñ ko moo di Idrissa Seck ndaamal Kajoor yéen a kaay groupe des médias nee na perdu par son côté versatile Idrissa Seck mbaadu tànneef gu ñu fàtte la waaye Idrissa Seck mi anam ku gis ndaamal Kajoor nañu wax réer na mër wala dafa am lu muy waajal xippi leen seen i a yi xëj ci Sénégal de Afrique war na koo mën a jëfandikoo nag war naa mën a jëfandikoo président Macky Sall mii ngir mu dox si lu andi jàmm ci réewu Afrique yi ngir lu suqali réewu Afrique yi ndax xam-xam baa ngi fi ndax bàkkee nañu ko ci àdduna bu wërngal këpp na président Macky Sall mii liggéeykat la expérience am diplomatique expérience am ci wàllu politique dama ne personnalité am ci boppam war naa mën a tax nag bu paree ci Sénégal gii réewu Afrique kar war kaa mën a jëfandikoo nag moom El Hadji Dia ambassadeur itinérant nee na man maa miser sur le chef de l'État waaw président Macky Sall moo dëgg sax juróom lañu ñoo faatu l'observateur daal di dikkaat nee na man mi observé njombeli maa xamal ne kon ñu sa ay gaañu-gaañu am na ci juróom-ñaar yoo xam ne ay blessé léger le regard yéen kaay ne boo observé man maa xool la ma gis moo di tax boobee màbb dañu ko doon defaraat de ak jag laa la wax moom la doon def jag-jagalaat googee maanaam jàngoro la mujjee doon faat na juróom laa la wax ci ouvrier ya fa nekkoon seet ga metti woon na lool ndax taax bi ñu délégué ci ministre de l'intérieur moom Biram Fay dikk na boo xoolee ba biir gouverneur bu Dakar ma nga ca woon Alassane Sall dikk na def constat bi beneen constat ba ñu def l'indépendant yéene kaay nee mooy yuuxu wàllu ga nga xam ne avocat bu Ousmane Sonko def na ko enu naay loxoom de moom maître Ciré Clédor nee na fu mu nekk nii nag béy mu ngay bëgg way mbuus Ousmane Sonko sonn na lottu na état de santé mu ngay gën a critique waay waay waay waay nañu libéré waa ji nañu libéré Ousmane Sonko un appel pressant pour la libération kaay wax ñu lu ko jot son kaw de quoi souffre Ousmane nii la ko yéene kaay bi bind laa la wax nee na Ousmane Sonko mi nekk ci kaw ani lan moo ko dal faw nga wax ñu ko dak maître Ciré Clédor Ly ne da ngeen ma tontu leen rek deux minutes pour l' essentiel da ngeen laaj dong rek bie boo ngeen xam ne l' essentiel moo di Ousmane Sonko taux de glycémie bi dafa yéeg ñu ne deete waaye mu am début insuffisance rénale te démb rek démb laa la wax nii état de bi lépp bañ maître mooy wax de maître mooy wax dana ay ñaar ci weeru bii barki déem boo njaay dañoo tiit ndax kat ñun ay avocat am ba ci médecin personnel am laa la kenn jox ñu autorisation kenn jox ñu autorisation ngir ñu mën a gis Ousmane Sonko déet waay maître nañ lii laa la moo ñu tiital lii rek nag moo tax may wooteeg wàllu Ousmane Sonko dama ne sonn na lott na le mandat yéene kaay ne ko maître dama ne wooteeg wàllu gi gaa am na solo nag waaye nag lii yëpp ko Ousmane Sonko di dund ak yaramam bu jagadee dama ne mooma ndax nag moom soobu ci ab xiifal ah kay moo soobu ci ab xiifal ndax nag maître yaa a gàccaa nga caa xiifal gii nga xam ne moom la song te koo baa lii rek nag moo tax yaramam jakadi waaye du leneen la mandat yéene ni waaye solution mën na am ndax xalif général kullu murid yóbbante na ko ay tàndarma mu ngi koy xamal ni jëlal ci lii nga daal di dog te xiifal googee ndigal la waaye ndax ndigal loolee Ousmane Sonko dana ko dégg ndax ndigal loolee mën naa sowe soldat patriote bi loolooy laaj bi nag le mandat yéene samp na laaj bi waa ji dana jël ca tàndarma joojee ngir mën a dok maanaam dat ja le point actu ne que aha kay Sonko nag avec destin date ba mu ko bindee tàndarma de waaye date bii mënees nañu ko tekkee ni rendez-vous point actu nee na grève de la faim ak yóbbanteb Serigne Mountakha mii mu xanaa kon Ousmane Sonko mbir yaa ngi ci loxoom ndax bu dee président Macky rek nopp bu bon bi la ko may Macky Sall reste sourd aux appels gaañaa ngay yuuxook fu ne maître Ciré na rajo yi woote nag woote ala accu gatsa gatsa bi la woote ba ci grève de la faim bi gatsa gatsa googee la ñu ne meeku laa la sunu intellectuel yi l'enquête yéene kaay ne nawle daa foor de dama ne nawle daa foor waaye nag sunu intellectuel yi fu mu nekk ni xamuñu loolu ña yekkante lu mel ni xemee la waral du lenn lu coowal politique bi ku nekk jël position diggante nag bindkat bii di Felwine Sarr Boubacar Boris Diop ak yeneen intellectuel yi ñoom nawle yi ci déet dama ne déet waay nawle daa foor nag te ay nawle ngeen suuf soi ni kon Ousmane Sonko it seen nawla le kay yéen a koy seetaan de ndax nag radiation bi nga xam ne def nañ ko ci fichier électoral yi commissaire bu jëppal ba mu demee ca këram fekk ko fa dafa demoon ngir jox ko notification bi wan na ne kon génne nañu ko ci fichier ba waaye finalement nag préfet bu Dakar ci boppam moo ko jox directeur bu prison bu Sébikotane kon lettre banque fay xaar ba bataaxal bi ne moo ko wan ne kon nag bokkatoo ndax ba fii jotagu ko nag moo ngi sa pavillon spécial critique yéene kaay ne ku wax ci liy wax ca la ca des dama ne sunu société civile bi lu muy nuru sunu société civile bi safuñu yàpp safuñu jën kenn xamul lu ñu nuru laa la wax critique yéene kaay mooy wax de nee na la je trouble de la société civile mën nañu ci bii boor te mën nañu ci bee boor société civile lañu am ay politiciens encagoulés waaw ay opposants yu nga xam ne ni daanaka yàkkamti nañu nguur gi taxaw rek ñu yekk ko li mel ni xamee ay manipulateurs ay calculateurs waaw cool politique rek la ñuy topp daraay askan ñoru leen du samay kàddu de mooy wax de nee na suñu société civile bi am na si ñoo xam ne dara askan wi ñoru leen politique bi la ñuy di dóor bàcc muy leer société civile fii ci réewum Sénégal deram yàqu na yaxeet critique yéene kaay mooy wax de du samay kàddu nee na dañuy màtt fii nga foog ne fii la ñu dem di ëffale ku si nekkaat say calcul calcul yooyee l'exclusif yéene kaay nee nag moo tax ba fii ñu toll nii benn bokk yaakaar amagul candidat di déedéet wala waxaguñu ko boo en tout candidat mu di Abdoulaye Daouda Diallo ADD kii rek la bëgg nag alerte yéene kaay nekk déetuwaay Abdoulaye Daouda Diallo ngeen tànn waaye bu leen fàtte Mame Boye Diao mi ngi ci course bi de président Macky la kenn mënu weddi te mu ngay buuxante fu mu nekk ni mayu leen dara te dëggal na boppam fëgg na dënnam alerte yéene kaay mooy wax nee na masul doon ministre waaye tey jii am na fit gu doy taxaw ne kon candidat laay doon bu benn bokk président Sall kat moo leen def li ngeen doon nii kon nag luwaayotee bu leen ko fàtte le temps mooy yéen a kaay bu leen ko fàtte de candidat la présidentielle 2024 bi may séen nii muy dikk Arona Coumba Ndoffène Diouf nee na du ma si doon seetaankat déedéet du ma si doon tàccukat déedéet dama ci bokk ba ca biir laa la wax acteur lay doon Arona Coumba Ndoffène Diouf mooy wax de ci le temps mooy nee na waay waay sénégalais nag war nañu xam ràññee te gis ne président mak Sall mii la muy doxal nii yëpp moo di dafa bëgg des si nguur gi wax na du def troisième mandat de muy doxal nii yëpp ay pexe yu nga xam ne da teg ngir mën a des si nguur gi ba léegi man maay wax Arona Coumba Ndoffène Diouf nee dama ne notre politique d'industrialisation fera du Sénégal une grande puissance en Afrique maa ko wax Arona Coumba Ndoffène Diouf nee boo leen ma falee ay boo leen ma ñamee man toutes les dépenses à la disposition des Sénégalais ku te nee nag wax fa dëgg neex yàlla li nga xam ne moo daal Ousmane Sonko acharnement rek la nag nañ wax wax ji acharnement la Arona Coumba l'artisanat yaay leader sans frontière koo xam li nga fi def nee na ka doomu Fatick nga de waaw Fatick pur sang doon jaay Fatick nga am ci sa wàll Bamba Sarr directeur de l'artisanat ndaw mooy sa bàkk te lii la ñu la nawee le point yéene kay ne Bamba Sarr mi boo leen bëggee dégg dëgg de mooy leader sans frontière laa la wax nii yootu réew mi quotidien ñu xool fi réew mi toll laa la wax jamono ji fii réew mi toll moo di ñàkkum doom gi maanaam takk sa jabar ñëpp la ñuy xëpp seen i gët di xool kaña la soxna si laa la wax di am doom ñaari at ñetti at ñeenti at ñu ne waa ji utile keneen te xamuñu lan moo tax mënuñoo am doom lépp ñu jël ko nag jóor ko soxna si soxna si mu ngay def témoignage si yéenekaay bi nee na sama jëkkër ci boppam dafa bañ a àndax man ngir ñu dem consulter wu ji ndax dem nañu juróom-ñetti at yu nga xam ne nii amuñu doom ñu joxoñ ma baaraam boor bu ne ma dem ba xajatuma fi laalaw waaye ba ñu mujjee dem li ñu gis moo di sama jëkkër varicocèle bilatéral moo ko dal ndoxu góoram si boppam moo am problème ndekete yoo du ci man Mortine sociologue la nee na sëyu Sénégal moo metti te lépp nag jigéen ji lañu koy teg bu xaar am leen doom ñu ne ko jaasiir kii bëggul a takkal keneen te moonte de boo seetee ba sa biir ku góor ki it na ca am wàll kon mu ngoog di di seen i